waaw man day euh, sama doom la man naa ni ndax euh, yaayu xale bi sama dëkkandoo la ñoo dëkk ñoo takkaloo kër mu xëy suba teel dégg naqar bi mu ne ma ñëwal nga jàppale ma dimbali ma ma bàyyi li ma jàppoon yépp ñëw ànd ak moom bi ma demee nag gis naa directrice hôpital bi man maatoo toog ak moom kenn nettaliwu ma laaj ko ni ko ndax doomi diw ci la bokk mun ma vraiment mu xool portable am ne ma ci la bokk dee na bokk na ci liir dee ñu dégg ni xale bi ki nga xam ne moom moo moo ñàkk liiram yaayam sax yëgagu ko. waaw yaay ji yëgu ko yaay ji moom maa bàyyi ci kër gi xale la xale bu ndaw wax yàlla yëgu ko. lan moo sabablu woon liir bi ñëw ci biir hôpital bi. liir bi dafa judd tam matul parce que dafa judd ci sept septième mois. yàlla dogal ñu dugal ko ci feer yi alhamdulilah rabbil alamin yàlla def li ko gën li li gën. waaw man nag fajar laa ko yëg. fajar teel ay ay six heures du matin bi ma taalee sama télé laa laa dégg information bi après la ma maire bi wax ni ma kaay gunge ma ma ñëw ma gunge ko euh, ma dem laaj renseignement ñu jox ma ci lu leer ma ñëw wax wax ko ko léegi moom nag boobu tey mi ngi toog fii parce que mun a ñibbi xamul nu mu koy waxee doom ji waaw loolu daal laa ci xam ni daal yow yaa fi taxawu xale bi comme papam waaw maa ko taxawu comme papam parce que du jug sama kër dëgg yàlla xale sama kër. waaw te ñeewante naa yaay ji ndax nekkul ak benn góor mu ni ma kaay dimbali ma góoral ma ma ànd moom. lan moo war a mën a faat xale yi. ah xam nga lakk moom lakk dafa garaaw. lakk moom am nga saxaar saxaar am nga ne xale moom waxuma dara ngelaw lu bari sax ay xaju moom asuma saxaar. Mhm. donc kon su fekkente ni ba yàlla dogal na fañ leen dugal mu lakk kenn nekku fa kenn amul ku leen mhm. ah, la xale yi dee. dee gu xale bi moom confirmé na ma directrice bi wax na ma ni carrément non xam nga responsabilité moom mënoo koo te kenn loolu moom ndax loo fekkewul xamoo sabab bi moom mënoo ci jël benn responsabilité waaye xam naa ni daal càggante moom am na ci moom ndax ay xale moom vraiment bu fekkoon seen yaay lañ nekkal mu tiim mu tiim leen di leen nàmpal ak lu mën a ñëw ak danger mën a ñëw dinañ jël seeni i doom fexe koo rawale waaye nag bu fekkente ni ba hôpital nga nekku fa peut-être xëy na loolu moo waral mbir mi càggante daal la. wax ci doon benn ana yow lan ngay wax li nga xam ne moom mooy état Sénégal ndax li nga gi nemmeeku moom la bari nemmeeku muy càggante. bon loolu moom lu wér la loolu moom mag ndaw ñëpp xam nañ càggante bi donc te franchement par lii moom euh, du ma ne sax ku bàyyi mu jàll waaye ku bàyyi mu jàll moom mooy loolu.